جيت لك دائرة الكرام دائرة الأحمدية دائرة المحمدية دائرة المتحابين في الله أكشن دارجي دائرة النعمة بصحنا كلام بي جمالاي كن دو تدو جمالاي تدو وصحنا كلام بي نحن موي شيخ التربية سرين عليه السلام نيو دفن دو سين لب يالا لين بولي ينك بينا incha allah buñ ñu woo ñu leen woowee jaaree ak soxna Kala. Mhm. magam soxna Daba woo nañu ñëpp mhm. woo nañ ci sama soppe sama xarit muy mhm. soxna Umu Xayri. si bu suñu bàyyi sëñ Moustapha si almaktum almaktum di ko ci woo. ndax borom taxawaay la. ak fondation bi ak fondation ma faawaati wele. buñ la wooy woon nañ ñëpp sànq rek Fatlaay nga xam ne membre la ci ñoom di njaboot ci fii mhm. di njaboot ci kër gi mi mhm. ngi may woon ne ma footoo ci yëf yi daa wax nga soxna umag yooyu ñu waxtaan si mhm. tabaarkalla yooyu defee encouragé di ci woote sëñ Abdou Aziz Bourou ceer bu ñu leen woowee woo nañ njaboot mam si daxme si buri cër yëpp mhm. ñoom Pape Khalifa Ndiaye suñu mhm. nijaay mhm. maam Omar ñu leen wooy woo nañ waa njabootu waa plateau yëpp plateau yëpp suñu waa kër sëñ Mansour si Jamil waa kër sëñ Moustapha si Jamil sam mosu ko wuute suñu Habibu sëñ Mansour ñoo ngi leen di woo ñum ñëpp ak mboolemu instance ba ci waa Koskas ñu ngi leen di wowoo jiital ci suñu président di mam Ousmane Samb Ousmane Samb buñ ko tuddee tudd nañu ñoom Abdou Abdourahmane Pay nga xam ñu ngi ciy ñëw. Mhm. waa parcelles yi nga xam ni ñoo ñu gën a jege. Mhm. ñëpp ñoom Cheikh Talla Ndiaye. waa kër Baye Khalifa Badiane waa kër Baye Khalifa Badiane waa kër Sëñ mhm. Aïssa Touré. suñu waa waa Yoff yi. ak euh, fële nga xam ni mooy waa Grand Médine. di suñu waa kër Mame Demba Thiam. ñoom Cheikh Talla ñu ngi dox liggéey bu rëy. di ci woo waa naaw jiital ci seen président Khalifa Sall barki dem gisee nañ toog waxtaan ci waxtaan bu yaatu. buñ leen woowee ba fii ba yëmb yëmbal mhm, mhm. suñu daayira yi nekk foofu ñoom mhm. Abdallah nekk foofu di taxaw taxawaay bu rëy lii nga gis sama gannaaw ñoom ñoo ko doon liggéey fond bi ñi ñëw ànd ak ñun ñu ci dara ñoom ak ñoom daam ñi nga xam ñoom ñooy waa caaro yu Pikine yëmbal ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ak sama ay soppe nag waaw la sopp bare na ñooñu moom <laughs> ñoo si tudd moom mooy suñu suñu mbokki firikat yi ak waykat yi te mooy ñoom Abdou Aziz Ndiaye. su ma ko mm-hmm. jaalee ci Oustaz Mouhamed Diouf. Mm-hmm. jottalil na yóbbante nabi yëpp. Mm-hmm. ak euh, tiktokers yi itam. <laughs> waaw <laughs> barki yaa ngi gis ñaa def réunion fii. ñoom ñëpp ils étaient là. ñëw ànd ak ñun te bëgg naa ñu taxaw leen parce que. c' est des personnes qui envoient des message de forts message yoo xam ne dafa dëppoo ak kër gi. te am nañu ndigal. bu mat sëkk ndax waxtaan nañu ak man. te man lu may def dinaa ci waxtaan ak samay baay. donc ñu ngi ci chaîne bu wér. lépp lu xew ci kër gi ñoom dinañ ko jàllale. incha allah te ànd nañ fas yéene naa ànd ak ñoom ci liggéey bi. woo nañ ci ñëpp daal. président El Hadj Bari ak soxna Dior Ndiaye. bu daara mu taxa bi na fillahi sëñ ay safetu si. ak suñu yaay Faagay Dieng buñ ko tuddee tudd nañ ñeer yëpp. ak section yi aju ci daara mu taxa bi na fillahi yëpp. ba ci ndar. ñu ngi leen di woo sama daara maam safetu si. waa Pout yi ñu ngi leen ciy woo. suñu daara yi nekk foofu ak ñëpp rek. ñu ngi xaar ñëpp di leen tatagal suñu dëkkandoo yi ni ñu daan ubbee seen kër yi ñu ngi leen ci xaar ñu ubbee ko si fa tabaarakallaahu lii lañ doon jottali ci turu suñu kilifa di maam Ahmedine Sall bu Serigne Alioune Sarr Safietou Sy wasalaamaaleykum wa rahmatullah